vidéo yi ay xale yu jigéen ak ay xale yu góor def ba su korité tuddee ko lomotif coow loolu fayagul ba léegi démb alxamis ñeent fan ci weeru join ñi nekkoon tribunal fekkee procès xale yi dégg nañu lu doy waa EMD ak i xaritam AMS ak THL jàkkaarloo nañ ak juge bi ñu ngi leen di toppee detournement de mineur yor ak wasaare vidéo yuy wone ay xale yu rëkkante nee nañu mbir mi mu ngi xewee say appartement yu nekk Maris ak Sacré Cœur wasaare ma benn vidéo ci internet di weddi kii di EMD mi ñu bëri jàpp ne mooy cerveau affaire bi waaye man maa filmer vidéo yi ginnaaw loolu laa leen jox sama benn xarit pour mu defal ma montage ak application bi ñuy woowee Lomotif vidéo yi maa ngi ko filmer bésu korité ci benn appartement bu nekk Maris bës ba man ak SS ak AD WD ak ND ak MS ñoo fa nekkoon MS wala AMS moo wasaare vidéo yi ginnaaw ab statut WhatsApp bu mu def tëdd naa ak ND ak AD bi ñu nekkee sacré waaye filmé wuñu ko di xamle EMD AMS weddi PMD nee na mësul wasaare benn video ginnaaw bi mu waxee juge bi ni yoroon na ci vidéo yi ak image yu bon yooyu ND xale bu jigéen bi ñu doon déglu en tant que témoin nee na jot na tëdd ak EMD ki ñu woowe BL AMS ak SS bi ñu nekkee Sacré Cœur waaye bokkul woon ci ñu demoon Maris ND yaayam la àndaloon tribunal AMD moom nee na tëdd naa ñaari yoon ak sama copain bii di MD waaye filmé wuñu ko MD moom nee na moom moo publier vidéo yi ci WhatsApp MD moomu mineur la maanaam amagul 18 ans nu Konté mi loué woon xale yi appartement bi nekk Maris ak Johnny Hervé Gomis mi leen loué woon appartement bi nekk Sacré-Cœur procureur ñaan na ñu daan leen juróom-benn weeri kaso ginnaaw bi mu sàkkoo ci juge bi mu tëj EMD AMS ak THL atu yàlla bu ànd ak juróom-benn weer sursis tey ajuma xale yi nekkoon ci vidéo yu bon yooyu gisewaat nañu ak juge bi atte bi dañ ko mujj dàq ba le 12 juin bi di ñëw juge bi jotagul seetaan vidéo yi looloo waral dàq bi